sëriñ bi bi mu koy woote ñu santale ko ci boroomam moo taxoon ñu ñu ñu woote ko ngir sant ci boromam. dëgg la demoon nañ ba soppee ko ne neen. ba nga xamante ne maanaam guddig màggal bu ñëwee. tëgg mi fii tux mi fii. man de daanaka tuubaa demoon na jàppkati jaan yi. waaw jumaa ji li ko wër kenn xamut nu nu dëkk bi doon dundee. waaye bi Cheikh Abdou ñëwee. ci njàmbaaram. Ah,